bu njëgu mburu yokkoo fan yi bu mu leen bett loolu nag nekk lu metti jolof-jolof bii dama dama bëgg mburu nee naa leen lu ma am mburoo ma ko gënal man ay xëy ndekkee ginaar ak yooyu bëgguma ko man daal noo nekk mburu mu tàng jër ma boole kook sama café sama meew ma naan lekk ma nekk à waaw waaw mukk ci na dama ko bëgg moom wax dëgg yàlla njaay yéen sant sama papay jiit la ca daara jolof moom moo ñu yàq ci mburu ñun jolof-jolof lañu jolof-jolof boo gis rek dafa bëgg mburu soxna si moom mbokk séeréeram yi al lay xalaat xam nga yi saay bu ñu xëyee ñu gisul cere dañoo war a gis mburu ndax séeréer ñu gisatul cere ak meew bëgg a jàpp ci lii nekk ci defet nekk fii di daan doole bëgg a nekk ci lii lu metti la affaire mburu mi nag jaboot ñun dañu sonn dëkk bi ñëpp a sonn ndax mburu mi ngay gis kilo am na am na ñoo xam ne euh, fonde bi la ñuy naan jox seen njaboot am na ñoo xam ne sax duñ xëy lekk xëy café Touba ji boo gisee muy jar loolu rek moo tax dañuy xëy rek naan lu tàng daal di dem seen yoon waaw mburu mi cher na trop waaye loolu moom bu ñu ko defee dina gën a metti de waaw dina gën a metti ci dëkk bi. waa ji li ko jaaxal mooy lu tax boulanger yi mënu ñoo wut beneen pexe. mais man la problème bi may posé wu mooy euh, dama gis ne boulanger yi ñoom seen problème. courant dafa cher dañuy yokk mburu bi léegi yokk mburu bi ça veut dire que ñoom si population bi rek lañu mun a régler seen problème ñoom amuñu beneen euh, alternative fu ñu war a jaar pour euh, gérer loolu mais foo population bi subir les pots cachés daal ah ba kañ. population boo xoolee jaayul courant ñun dañuy consommer rek de ce fait que ñoom mi nga xamante ne Sénélec mi nga xamante ne moo gérer affaire courant bi su chéré nañu dem traité ak Sénélec loolu. te ñu épargner population bi quoi de grâce. nañu jàppale njaboot gi ndax dëkk bi lépp seer. dañoo war a jàppale doomu aadama yi xool ne xam ne li ma la wax rek dëkk bi nit ñi sonn nañu mënuñoo yuuxu mënuñoo daw. góor ñi ci bari li ma lay wax rek kaasu café bii ngay gis muy daw senegal ñàkk am loo jëndee mburu moo ko waral ndax kafe Touba gi xett dina doomu aadama yëpp ak Nescafé bi waaye buñ ko yokkee nag suñu maas dina am ñu mu metti ci ñoom de billaay wallaay dina am ñu metti ci ñoom ndax lu ñu am mburoo ñu ko gënal man mën naa koo añe mën naa koo reere mën naa ko ndekkee mburu dafa baax ci réew mi de. four bi sunu sunu moo daan liggéey ci four bi moo ñun ñëpp ñu bëgg mburu ba léegi nii. Eh, dama koy poñ sa sax bu desee ni bugguma ko sànni dama koy jël def sama soow ak sama kii daal di poñ sa lekk ndax bëgg mburu mburu lañ ma tuddee. courant bi seer na si ñëpp rawatina ci boulanger yi. looloo waral seenub fédération. ko ñu yokk njëg li ci kàddu Amadou Gueye seenub njiit.